fenn tàbbi waxtu julli julli farata comme nu leen ko waxee woon nodd nag kenn du ko def ci geneenu julli guddul julli farata lu mel ni julli yi nga xam ne dañ koy def ci mbooloo ndax am na julli yoo xam ne dañ koy def ci mbooloo waaye nag nañ ci bàyyi xel ay julli la yoo xam ne ay julli nawaafil la yoo xam ne du am noonu du am liqaam yooyu julli yu mu doon mooy julli euh, korite ak julli euh, tabaski julli baaw naan hmm, salaatul istiqa istisqa hmm, julli muurum jant yooyu yëpp ay julli la yoo xam ne dañ koy def ci mbooloo waaye nag kenn du ci nodd kenn du ci liqaam nodd daal ak liqaam suñu la laajee na nga wax ne ci julli farata rek lañu koy lañu koy defe te kañ lañ koy def mooy su waxtu wa tàbbee su waxtu julli farata ga tàbbee ca la ñuy xamle ne julli jot na ca la ñuy def nodd kon nodd mooy yëgle mooy xamle tàbbi waxtu julli léegi nag ci lan lañ koy defee mu ndax ak weñ la fëgg bu jotee wala dañoo war a sone mu xumb maanaam ana nan lañ koy defee ay baat la ci ay baat lañ koy defee moom lañ ko jagle baat yoo xam ne su waxtu julli wa jotee su boobaa ah, nit ci jëmmi boppam mel na mu war a mel nit ku sel mel na mu war a mel ci ay melokaan su boobaa moom mooy taxaw nag jublu penku daal di nag wax baat yooya ca kaw kem fa baatam yem ngir bëgg mu xumb su ko defee ñépp xam ne ku ko dégg xam ne julli jot na loolu mooy nodd mooy li nga xam ne bokk na ci liy tax mbooloom jullit mën a dajaloo julli julli mbooloo loolu bokk na ci ci lii mën a tax way julli ña mën a tàbbi ci julli mbooloo mën a nekk di buur jëm ci ci julli te di ko gaawee ca njëlbeeni waxtu ya noddu bokk yi day jaamu yàlla goo xam ne gu màgg la tëral nañu ko nag ba mu nekk di jaamu ko aji xam ña di aji xàmmee ay chartam moo tax ñu leen di leen digal ngeen ànd ak ñun ci Tawfekh Production gaaw leen ngeen abonné su ko defee ñu dinañ leen ji jima leeral melokaani nodd niñ koy defee ndax léegi ndax dafa doon dafa doon loo xam ne tëral dañ ko ba mu nekk di jaamu aji xam su ko defee yiñ ca war a seetluwaale ci ay baat ci ay xaraf yooyu yëpp gaaw leen ngeen pro ngeen ngeen ngeen abonné ci Tawfekh Production su ko defee danañ leen ci indil ay waxtaan ba ngeen mën cee. Eh, jànge lan mooy nodd eh? ndax day jàmm yàlla koo xam ne ku jullit bu nekk war a xàmmee la ñu di leen ko fàttali leen gaaw daal di eh, abonné incha allahu taala ñu di leen ci indil ay waxtaan yoo xam ne di ngeen ci jëlee njëriñ yal na yàlla def ci ñu dégg topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.